ngeen jëf ci teewlu bi ami site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doore tribunal bu grande instance bu ndakaaru niki tey ji rek dina addu ci dossier kii di Ousmane Sonko ginnaaw bu avocat yi sax ko woon rek ñu doon di koy dugal ci liste électorale yi mu bañ a bokk mu mën a bokk ci jongante présidentielle yi dama ci atum 2024 bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne tam bii di woyee ci turu number one daal dina koy yëkkati moo na question bi nga xamante ne rek def nañ ko moo ñeel légitimité kii di agent judiciaire bu état Sénégal ci mbir nu mel nag maa ngay sàkk bu baax ñu amal ab procédure maanaam daal eh, kii di Ousmane Sonko rek ñu dund rajo bi nga xamante ne rek daal dinañ ko koy raje moom avocat bi daal di xam ne rek ni ki tey jii dinañ layal nag seen client bi ndax radiation bi nga xamante ne def nañ ko ko rek amul fenn foo xamante ne rek luwaa daal dina koy wax ndax Ousmane Sonko ci jëmm boppam nag jotul ab note bi wane na nag dañ ko daal di daan kon nag dëppawul benn yoon ak li yoon wax ba tey rek ki nga xamante ne moom mooy ndumbe wan la daal di xam ne mooy acte bi nga xamante ne rek moom moo waroon a am ab notification te Ousmane Ousmane Sonko waru ko waroon koo jot jotul ko benn yoon ki nga xam ne nag di avocat bi numbe wan lam ca daal di yokk nag moo dina kii di état bu Sénégal nag na mu daalee doole daal métti na lool ndax lam def amul fenn yoon foo xamante ne rek loi daal dina koy wax ba tey rek avocat yi nga xamante ne ñoom ñooy layal Ousmane Sonko niki tey ji nag dañoo taxaw pour jàppale seen client ba rek di xamal ki nga xamante ne nag moom mooy Macky Sall ak nguuram radiation bi nga xamante ne rek def nañ ko Ousmane Sonko joxuñ ko benn yoon not waaye nag fenn rek la ko déggee mooy ci télévision te ki ko def nag nag di Ismaïla Madior Fall ginnaaw déclaration boo xamante ne rek doon na ko def ci plateau télévision ki xam ne mbir mu nu mel nag di ndumbe wan mi ngi ko wax nag ci micro suñu nattangoy Dakar Actu du ñàkk dinañ ci xuusandiwaat ci yeneen i jotay xabaar jërë ngeen jëf ci teew teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen i info